salaamaaleykum mbokk internetu wasaare news ni ngeen ko xamee woon Puma dafa génné won récemment ay maillot du Sénégal né Sénégal mom lay footballé coupe du monde Qatar maillot yi nak euh, biñ ko dugalee ci réseaux sociaux yi ñu bari ñaawlu ko ñu bari né maillot dañu ñaaw piment yabuñu euh, Puma nag xëy na tey ci suba génné génnewaat maillot ci site officielam né ne maillot yooyu la Sénégal nar footballé ci coupe du monde 2022 diko jaayé 90 euros loolu mo nar nek nekk maillot yi nga xamné Sénégal nan nañ ko footballé peut-être ñu nar xaar euh, ñi nga xamné war nañ see addu muy comme Augustin Senghor d'accord ak membre de la fédération ñu wax ni maillot yooyu lañ nar a fubale wala duñ ko fubalee